nga topp ko saa du dara. mais assurance moom fi mu toll nii boo dee boo dee xool fii ci Sénégal boobu laay wax de. Euh, mën naa ne njariñ li bëriwul bu dee am na tamit bu fekkee ne am na ñuy dagg assurance mu de mu di leen assuré ah bëriwul Sénégal bu dee cent boo dee xool vingt pour cent yi ñooy dagg assurance yoo xamante ni dañ ciy dañ ciy dañ dañ ciy gis seen bopp da leen di assuré. sëriñ bi moom di wax ne moom def na ci soog sax waaye terewul ba léegi mu assuré boppam jafe-jafe boobu nag jooytu nañ ko ci seen kilifa yu nekk waaye terewul dafa mel ne assurance amul benn njariñ ci ñoom maa ngi koy may wax yow sama tànk bi damu ci yi ma ci man maa ko man maa Sénégal amul benn njariñ ndax bu fekkee ne ñu ngi ciy assuré tamit bëriwut di xam ne lu ci ëpp intérêt état bi la ëpp loo gis lu nekk rek ca base ba la dafa am dafa am lu ko waral tey lii waral assurance mën a jaar yoon ci Sénégal état bi moo ciy jël ay matuwaayam xam nga état bi moo ci jël ay matuwaayam pour assurance mën a jaar yoon Sénégal mais état bi bu ci jëlul ay matuwaayam dara du baax dara du jaar yoon comme yii rek xew nii barki démb ñu commencé dañuy changer permis toujours boo xoolee état lépp lu muy nekk di ci sonn rek intérêt personnel am lay doon intérêt am lay doon nga mais du xool du xool luy intérêt askan wi du ko xool dëgg dëgg dëgg mu am ci nag xeeti assurance yu bëri mu ci mel ne assurance de personne di assurance boo xam ne dafay laal nit ki ci boppam ak assurance de retraite complémentaire ak yi nga xam ne dañ koo jagleel xale yi ak assurance de décès invalidité yile ponk nag nekk ponk yu am solo ci sénégalais te bëriwul ci ñu ko xam